wal dop aussi débat d'orientation budgétaire jaar na fi fayagul parce que ba léegi le problème reste entier c'est le statu quo ñu bëri ñu ngi interpeller le président Bassirou Diomaye Faye pour qu'il prenne ses responsabilités en tant que clé de voûte des institutions <coughs> ban lecture nga am ci li xew diggante la premier ministre Ousmane Sonko ak euh, le groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar euh, diggante Ousmane Sonko ak le groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar dara wax dara xewu ja suñu waxtaan rek que ñoom ñaar waruñoo laale c' est le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif kenn waru cee laal sa morom da naan diggante groupe parlementaire Yewwi Askan bi ak le groupe parlementaire. Benno Benno Bokk Yaakaar. parce que foofu la coow li ne ñii dañoo jóg di protéger nit ñii dañoo bëgg kii ñëw toog te ñi li nga xam ne moom lañu bëgg lu constitution wax la fixé wul délai nag. mais ba ñu xamee ne dañu dañ foor a ñëw assemblée nationale malgré la situation d'illégalité du règlement intérieur sur cette question la assemblée nationale lañ ko waroon régler c'était aux députés de se parler et de voir comment faire pour accueillir le premier ministre. en toute responsabilité. déglul baax li ma la dama ne. Mm-hmm. en toute responsabilité. ce que les députés non pas fait. j'ai dit ce que les députés n'ont pas fait les hostilités yi dafa démarrer ci benn boor. mooy un groupe parlementaire s'est levé pour faire une conférence de presse mmh. et attaquer certaines choses c'est de la politique politicienne beneen député bi beneen groupe parlementaire bi tontu c'est normal c'est de la politique politicienne mhm. te warul demee noonu parce que kii nga xam ni moo war a def déclaration de politique général constitution bu Sénégal moo ko sant moo ko jox injonction maintenant ba mu ko joxee injonction c'est le règlement intérieur qui doit l'organiser. Mm yi daf cee manqué. mais nañ ko organiser jarul coow mais malheureusement ki nga jox ki ki ñu jox ki jox ki nekk ci pouvoir exécutif bi dafa jox injonction pouvoir législative sant leen liggéey moom warul sant liggéey pouvoir législative war leen wax ni soo leen changé wul lii ci nangam ba ba bés sàngam ma waru ko waru ko. même si même si en face il y a une question d'illégalité dañuy seetaan. j'ai dit. de faux j'ai dit j'ai dit non c'est pas du faux. parce que règlement intérieur boobu ñuy wane ne dañ ko ci dugal amu ci dans le règlement intérieur bu valable bi assemblée nationale. Hmm. ces dispositions là n'existent pas là-bas. maintenant disposition yooyu nekku ci bañ koy wax yàgg na ca jamonoy Amadou Ba ba mu waree ñëw la. Guy Marius bind na Amadou Ba ne ko bul ñëw parce que disposition yi ñëw na. Euh, comment il s'appelle Mamadou Lamine Diallo bind na Amadou Ba ne ko bul ñëw parce que disposition yooyu am bind na président assemblée nationale mais warul mën a tere premier ministre ñëw mais 2019 ba léegi waaw déglu rek dañuy waxtaan rek constitution moo ne premier ministre dafa war a dem te na day ñëw dafa war a dem premier ministre accompagné de tout son gouvernement dañu war a dem devant l'assemblée pour seen seen déclaration de politique générale hmm. waxul àpp Ousmane Sonko mënoon na ko def une semaine après sa nomination. ou six mois après. ou bien cinq cinq ans après. Oui. est est-ce donc waxul àpp puisque waxul àpp député yi ñoo waroon organiser wu pour dalal ko ci kaw mu pare. invité ko ci kaw mu pare. invitation lay doon quoi. déedéet moom mooy pare. Mm-hmm. le pouvoir exécutif adressait une correspondance au pouvoir législatif pour ñu accueillir le premier ministre mm-hmm. et je pense que toutes les conditions devaient être réunies pour accueillir le premier ministre xam nga lu ko yàq mm-hmm. communication ba ci am ñii ñi ngi ñii ñi ngi ragal motion de censure ñii ñi ngi daw ñii ñi ngi bëgg ñu dissoudre leen le plus rapidement possible parce que tamit li àndi lii yëpp docteur ak ñi toog mooy passé bi am ci biir assemblée nationale. passé bi am passé bi am biir assemblée nationale ci quatorzième législature bi. treizième bi sax. treizième waxuma la treizième c'est un prolongement. j'ai dit prolongement treizième bi ba fii. Mhm. xëccoo yeeg coow yi ci am. tey ñi nga xam ne ñoo indi woon ñoo doon indi coow lu bari ca biir assemblée tey ñoo féete ci pouvoir mhm. mais amuñu woon majorité absolue dañu amoon certitude majorité effritée. Mhm. mooy diggante Bennoo ak yi ak wàllook yooyu mais aujourd'hui dañoo dem ba constater di cette majorité effritée effritée dafa dem ba nekk une majorité aflo absolue par rapport à l'opposition c'est des craintes pour ay députés yi nga xam ne dañuy protéger seen premier ministre député yooyu doon protéger premier ministre ñoo doon wax ni sa ils sont des député du peuple aujourd'hui ils ne sont plus députés du peuple c'est par rapport aux déclarations des hommes politiques mmh. aujourd'hui ils sont les députés du parti au pouvoir le peuple a beau dos ouais. oui le peuple a beau dos c'est-à-dire quand on est à l'opposition on est député du peuple quand on est au pouvoir on défend le peuple quand ça nous arrange quoi très bien donc pour dire que déclaration homme politique yi démb ak barke démb day ay problème li andi wax ji wax ji yépp la courrier réponse du premier su courrier réponse boobu amuloon wax du am parce que entre député mun nañu régler seen problème. bon maa ngi wax dama ne waaw man xam nga seen cherche pas nga ñu d'accord mais je dis entre député yu bokkul groupe parlementaire mënoon nañ régler seen problème par élégance le premier ministre pouvait demander élégamment pour dire aux députés je vais venir. si njëkk nga bëgg wax quoi. j'ai xam nga nag premier ministre dafa am lu muy waxee. <laughs> premier ministre dafa am lu muy waxee. koo xamante ni yow munoo sant pouvoir ñaari pouvoir yi bokkul. Mhm. yow munoo sant pouvoir mu def. te dafa am loo soxla ci yow en tant que premier ministre da nga bëgg war a ñëw toog def sa déclaration de politique générale ba pare ñu def la motion de confiance dafa am loo soxla yow yaa soxla assemblée nationale guddi yi ñu toll assemblée nationale soxlawu la je de assemblée nationale. su may wax je dis le premier ministre moo soxla l' assemblée nationale parce que constitution moo ko ne da nga war a dem assemblée nationale je ne parle pas de l'homme je parle du premier ministre et ça toujours été comme ça dans notre république maintenant su nekkee premier ministre moo soxla assemblée nationale war a dem assemblée nationale. Mm-hmm. du jàpp assemblée nationale. parce que ba mu defee déclaration yooyu am na ay députés yu bokk yeewi yoo xamante ni ils sont très gênés en tant que membre du je dis du pouvoir législatif parce que nuñ ko munti waxee le pouvoir législatif dafa am doole pouvoir législatif dafa am force boo xamante ni constitution bu Sénégal moo ko may moo ko ko jox moo ko ko may pouvoir exécutif bi ëppul doole pouvoir législatif bi. pourquoi ne maintenant parce maintenant maintenant gis nga situation su amee. Hmm. il faut essayer de trouver des solutions. pour qu'on n'arrive pas à cette situation de crise institutionnelle. Parce que aussi, le président de la République, qu'on puisse dire, c'est le garant du, fonctionnement des, du, du, bon fonctionnement des institutions. Mm. C'est le garant. Oui. Mais pour l'instant, il se tue parce qu'il n'y a pas encore de crise. Parce que le Premier ministre est toujours dans les délais. Il est toujours dans les délais. Donc pourquoi il a dit qu'on mette la pression J'ai dit, non, non, non, non, amul mettre ko pression. kenn mettre ko pression xam nga tax ma ne la kenn mettre ko pression mm. c'est un groupe parlementaire qui a fait une conférence de presse pour demander au premier ministre de ne pas venir le pouvoir législatif n'a pas le droit de par de, de dire à à l'exécutif de ne pas se déplacer. mais lan moo waral ñooñu génn. parce que y a eu. Euh, euh, non non non non xam nga tax non non non non non non y a eu une pression sur la date sur un délai. de trois mois ñoom qui a mis la pression. j'ai dit déglu rek qui a mis la pression ce que je veux dire waxtaan suñuy waxtaan dañuy waxtaan qui a mis la pression ak qui n'a pas c'est-à-dire le Benno Bokk Yaakaar n'a jamais fait de conférence de presse pour faire la pression sur le premier ministre. bu dul conférence de presse ma terminer rek xam nga nag coow li am ah. Sénégal hmm. mooy ñun ñëpp ñooy toog di épiloguer sur le délai de trois mois. te warul nekk mais Bokk Yaakaar en tant que groupe parlementaire benn conférence de presse la def c'était pour répondre au groupe. Yewwi Yewwi Askan Wi. mais defuñu conférence de presse di wax ne le premier ministre a un délai. mais y a eu des bruits de couloir il dit déglu rek. non les bruits de xam les bruits de couloir ne sont pas une communication officielle. il faut qu'on soit mm. les bruits de couloir ne constituent pas une communication officielle. Mm. une communication officielle. c'est basé sur un groupe parlementaire li Yewwi def c'est une communication officielle de Yewwi Askan Wi li Benno def c'est la communication officielle de de Yewwi li li li li Guy Marius Sagna def c'est la communication officielle d'un député qui demande à son au, au premier ministre de ne pas se comme il l'avait fait avec Amadou Ba. le premier ministre def Sonko def nag j'ai dit le premier ministre Ousmane Sonko en réponse à Guy mari Sagna na devait pas poster sa réponse sur Facebook. su nekkee institution la ñu wax j'ai dit le premier ministre je par parle par de l'homme politique Ousmane Sonko am na ah. droit def lu ko neex mais le premier ministre de la République suy tontu nit député bu ko bind da koy tontu par presse pas par presse interposée mais da koy tontu par courrier officiel ah. mais il na l'a pas il a répondu en donnant injonction au pouvoir exécutif ce qu'il n'avait par le droit de faire amuloon droit def loolu maintenant nag jusqu'à présent il est dans les délais parce que le le règlement intérieur n'a pas encadré pour dire que c'est une le conseil constitutionnel a dit il fait il n'a pas dit il doit mm-hmm. il il a dit le, conseil il fait sa déclaration de politique générale devant l'assemblée oui le cadre est bien défini n'est-ce pas le cadre est défini mm-hmm. et le lieu est défini tout est clair le premier ministre nous sort et pourquoi ma ne le premier ministre parce que c'est la réponse au courrier du Guy Marius honorable député hmm. il sort pour dire si vous ne faites pas tel ça d'ici le 15 je ferai ma déclaration de politique générale dans une assemblée souveraine c'est-à-dire en violation flagrante de notre constitution warul taxawee taxawaay boobu doomu may Adama oui Cheikh Adama en parlant de violation on va revenir en arrière on va faire le temps assemblée nationale moom la ñu jox n'est-ce pas un projet de loi ñu tëbal poste premier ministre assemblée moo ko voté assemblée nationale moo dem modifier règlement intérieur am génne lépp luy laale ak premier ministre mm-hmm. assemblée nationale boobu la président Macky Sall jébbalaat encore projet ne ko dama bëgg a delloo siwaat poste premier ministre mm-hmm. assemblée nationale delloo siwaat poste premier ministre ba pare bi yoon mu lànk ne du laal règlement intérieur est-ce que la violation ne commence pas à partir de cet instant-là loolu muy benn bu ñu noppi woon ñu ne noppi nañu mais ñu alerter des députés responsables comme Mamadou Lamine Diallo ñu saisir le président de l'Assemblée nationale pour que mu apporter les corrections nécessaires. non il n'a jamais écrit pour saisir. il a écrit. non pour saisir l'Assemblée nationale non. D'accord, mais le président de l'Assemblée nationale, j'ai lu son courrier de réponse à Mamadou Lamine Diallo là où il disait qu'il prenait acte. Fatou, si si c'est parce que l'information n'est pas exacte, vous pouvez toujours me rectifier. Mhm. Moi j'ai bien bel et bien lu cela